fekk fa mbooloo mu bari mu ne ma waa ahlul badra ngi waaw fi laa fasanteeg Mikaayil man kóllëre fii ci néeg bi waaw nee na mu ne ko yonent bi du fi jóg mu ngi noonu doog a dem léegi kon mooy barab bi. bokk na ci kàddu gi nga xam ne si moom la njëkk a mujj a wax euh, wàcc bi liggéey looloo mujj ci gémmiñam laa ilaaha illallah sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam nekkate li ne ci ay mbindeef ci kaw suuf di dox dayuñu ma am ràmm yowmal xiyaam waaw A'udzu billahi mina sheytaan rajim Bismillahirrahmanirrahim. barke borom tuwa, barke borom tuwa, barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barkatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nga xamni ne yéen a ñuy bàyyi xel fi ci seen seen YouTube Daahira Wakana Haqqan ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen share bu baax di bége bu baax mbolem abonné yépp yi nga xamni ñom ñoy top liggéey bi day melni tay ji ñoy ñoo seen émission way nek fi ci kërub daru manan gi Euh, bëgg leen a xamaleeg penc mi ak kër gi ak mboolem histoire yi nga xam ne am na fi ci jamonoy sëriñ ba léegi ndax barab bi day mel ni barab la bopp mënuñoo tudd yoon wi te deesu ko tudd muy Daaru Manaan waaye mu nekk barab bu làqu lool ba nit ñi sax mën nañ ko bañ a xam mën nañoo daw jëm mën nañoo bañ a daw jëm fi waaye rek eh, ci seen seen YouTube daal wa Kana Haqqan bëgg fépp foo xam ne eh, maam jaar-jaar am na fa ci sëriñ beeku njabootam ñu bëgg di dugg ci ruq yeeg ruqaat di wan li nga xam ne moom moo fay am kon ñu fas yéene ci ànd ak suñu caméraman sëriñ Maam Mor Diop fas yéene ci ànd suñu baay joo xam ne moo nekk ci kër gi fa yéene ñoo xamaleeg eh, barab bi ak maanaam tàmbaliwaay bi ak ni muy doxee ba si fii nga xamne barab la bop ci ciirub borom daral muhti la bokku kon xamna bu ngeen ñu topé rek incha allah lu fi mëna xewé rek des na leen ko wan incha taala kon ngeen topp ñu wan leen lepp lu fi am incha allah. Cheikh Bamba gonté na fa daru jëm dar taan ma mbaaxaan di ko woona der der fukk ak juróom ñeneenti fan dib gaaw ci weeru gàmm la fa gonté saaw neena kala keroog na buti daaru dem ya, ko fa daarum nga fa ndam ak sero ya dana lakum masajjar baganar kana hasidin fasidil muhtar ham bayanan ta baro ci bodiya yara ne ya tar kolle ta gani tudiya dana la wax lu ma jadi nga xamne bamba nari jamah zatin la dem jolof njaay ham fa juroom na du samba ben njaay darul qudus la sa jama darul rahman tel de kon ci weeru tam xale caaman la sasi la bamba ñëw del tubaab yooyu la lasi ok bismillah comme niñ leen ko waxee woon rek ci ham barab bi ñuy taxaw ak suñu baay baay Abdou Ba bëgg sëriñ fallu mel na ni moom bokk na ci ñi saytu kër gi eh, nekk fi kon xam naa moom la ñuy àndal ci liggéey bi rek moo xamal ñoog barab bi bay Abdou ginnaaw boo nuyoo mbokki taalibe yi ñu sàkkoo xam barab bi ak histoire bi maanaam ndax Euh, Nek buñ ci gis wala mm, luy nuru ab wurmbal buñ ci gis rek amna na tekki ci pinci mi ñu bëgg am ay leeral ci yoy yëpp ngir mbokki talibé man man jarñu assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ma ngi nuyu bokki julit yëpp di ñaanal señ muntaha ak mu yagg fi ak njobotu señ tuwa gi yëpp di ñaanal cheikh Mohamadul fadal muy cheikh Abu baraka momit yalla nako fi yalla yagal ak rakam yàlla yàggal fi njobootu sëñ Tuubaa yàggal fi murit yi fayal ñu maam Cheikh Rafal ak Cheikh Issa Diène ak maam Thierno Birahim maam Cheikh Anta waaw fii nag moom neex naa wax neexuta wax léeg moom moom moom waaye daal li nga xam ne ni moom lañ fi jëlee ñun ñu fi nekk daal mooy barab bi dafa doonoon maanaam barab boo xam ne ni lu fi nekkoon la ci maanaam sosu sëñ Tuubaa ginnaaw ci ndogalu yàlla lu yàgg la nag waaye gën gaa feeñ daal. maanaam mu ngi feeñe woon maanaam ci jamono yi sëñ bi nekkee Gabon léegi yàlla dogal maanaam sun maam Thierno ànd ak njoboot gi ci ci di nekk sëñ Touba ci ndigalam maanaam di nekk ak njaboot gi di nekk ak njoboot gi maanaam di nekk ak njoboot gi ngir bëgg musal leen ak mosal leen yàlla dogal nag moom moom moom ba benn jamono dégg naa maam Cheikh Anta Gaawaan dem siyaari ji sëñ bi ca Gabon maanaam sëñ bi dal di euh, ko euh, tatagal ba jëmi jamono dégg naa mu ne ko ndax mën ngeen ma seetal ci fere yi ku dem ca taax ya dégg naa ñu seet ko maanaam ko ko dem ca taax ya mu weccil ko buum bi mu wecci ko buum yi yàlla dogal ne mu yët ko sëñ bu mag bi nee na mu dal di jël buum yi natt ko fa mu bëgg mu toll mu dal di ko booleeg maanaam ak ñaan goo xam ne nii da ko jële woon ca Gabon nga xam ne ba mu fay dugg yéegle nañ ne maanaam ke kenn mësu faa jaamu yàlla mm-hmm. yàlla dogal mu nekk fa ba jaamu sama borom tabaraka taala keroog nag la dal di fab buum yooyee dal di ko jox maam Cheikh Anta ne ko boo demee mm-hmm. jox ko maam Thierno Birahim ne ko mm-hmm. na taxaw ci fi ñuy wax guy tàggoo nee na mu fab buum yi maanaam nattu ko ba fu mu yem na ma fa defal kër te nekk ma fa ba ma ñëw fekk leen fa lii ci des ci kaala gi itam na seet buum yi mu natt ko maanaam fi mu toll maanaam ca néeg yi mu def ko fa te def fa ñaan gi muy suuf si waaw xamal ne maanaam mooy li ma doon jaamoo ca Gabon ba sama borom nangul ma ko moom laa leen yónni nii moom nangeen ko fa def ay nekko nekkuwaay mooy ñetti néeg yi nekkoon fi ëppoon na ci ay néeg sax ndax Sëñ Tuubaa fu mu mën sa mosaa nekk day bari néeg day bari bunt waaw ndax lu ko soxla rek ak fa muy aw waaye nag li gën a wér daal ñetti néeg yi ñoo fi dëkk ñoo fi nekkoon maanaam mooy barab bi ak jàkka jee nga xam ne ni maanaam euh, mooy néegu yàlla bi maanaam moom la fi sun maam eh, maam Thierno Birahim defoon bi ku baax ki jógee nag maanaam foofa bi ñëw bi mu ñëwee dal di jaar Dar Salaam maam Cheikh Anta ganale ko ba fa jógee fii la fekk si maam Thierno Birahim ñu saafoon te nekk feek njaboot gi maanaam ñu nekk fi juróom-benni weer di julli ji ca jàkka je maanaam maam Thierno li xam sëñ Tuwaay jiite ñu dellu si fi. nekkee be juróom-benn weer yooyu nag ci fan yooyu dégg naa maam Thierno Birahim dal dina ah léegi day kuñ dénk bu borom dénkaan la dikkee sañ nga wuti sa sa yëfi bopp moo waral këram gee sëñ Abdourahmane nekk tey jii moo fi kër maam Thierno Birahim kër gi nekk fi nekk fi nekk fi be bi maam borom Tuubaa demee ca jàkka jee bi mu fi jógee ci ndigalul yàlla ca fajar googee ca ndigalul yàlla ba yàlla digal ko mu war dem nag Murtani jaaraatul ci kër gi dégg naa ndax dafa manam mel nani ni bu la sa borom joglo ci ndigal ngay demat ci keur ga nga demone dara dara dara manam dana niroog ñaar yi dana niroog ñalay wo dang leen xawa am loy loo leen wala mu mel ni borom bi la digal ku borom bi digal warato jall fen lu ci la la yalla digal te sa borom yegal na mané amna ndigalul dem murtani dal di manam waaje fi dal di woo sëñ Modou mustafa wo Cheikh mamadou Fadal japp ci sen bop yi ñaanal leen be nopi ne denk na leen sen baay ci keur gi la negi néeg yi nag moom bii la ndax bi nga xamee ni Cheikh Mamadou Fadal mu ngi koy yeesalaat dafa jekki ba benn bés nee na mu xëy ne tey day damay beesalaat fekk nag sëñ Abdourahman jox ko ndigal ci kër gi ne ñoom duñ def lenn lu andul ak ndigal ndax bi fi sëñ Tuubaa jógee daa mel ni sëñ Modou Moustapha moo fab gaal yooyu ak bagage yi waaye ci néeg bi la ko jëlee waaw Cheikh Mamadou Fadal am ci ndigalul sëñ Abdourahman jox ko kër gi mu doog ko beesal ni bi mu ko beesalee bi mu dafa ne maanaam pour be maanaam dal di am am góor goo xam ne da ne ndax pour bi muy nakk-nakkal mu ne ko ay fii rek la lépp a ngi fi waaw dal dikkaat fii dal di ko xoos leen ñu xoos gis daay ji mu ne fii la fekk naa fi ku baax ki fekk fa mbooloo mu bari mu ne ma waa ahlul badra ngi waaw fi laa fasanteeg Mikaayil man kóllëre fii ci néeg bi waaw nee na mu ne ko yonent bi du fi jóg mu ngi noonu doog a dem léegi kon mooy barab bi Mhm, mhm. waaw tubarkàlla mu mel ni kon barab bi barab bu bu yéeme la mhm. barab bu murid yi war a gëstu la war koo xam ndax day day mel ni lu ëpp ci yoon yi rek eh, fii lañ ko waaje ngir dénkaane gi nga xam ne moom la sëriñ bi dénkoon Cheikh Mamadou Moussa Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi barab bii la eh, te itam day mel ni ba sëriñ bi sante borom Daaru Muxti ngir mu yeesalal ko kër gi eh, day mel ni boobu waxoon nañ ni seng jafe woon lool la ca jëm bañ tuddaloon ko borom dara Mouhty mun leen xamul leen ma wala xamul leen xamul leen sëriñ bi mm-hmm. euh, ba ba mu ca jubloo mm-hmm. maam la lam doon jumtukaay yam doon jëfandikoo yep maam dafa des mm-hmm. te mi ngi mel ni jamono dox na ba gis nañ ni euh, mel nañ ni ku toj jumaa ji tojaat léegi ngir yeesal ko euh, bañ doon ñëwaatal ci loolu maanaam jumaa ji maanaam jamono jooji ku ñu wax sëñ Modou Mbacke maanaam bi fi sëñ Abdourahmane di nekk maanaam moom moom mujj maanaam bi mu nekkee Darou Mouhty dëkk bi dem ba eh, yëfi sëñ Tuubaa du gént ci waxin wi waaye nag yàlla daa dogal mu dem a dem a dem ba bi fi ku baax ki jóge dafa defaat bëgg a defaatu bu àll léegi dégg naa ñu ne maanaam sa sëñ bi maanaam sëñ Fallu dafa ne maanaam ñu wutaat ku fi ñëw waaw léegi ñu seet ne maanaam fekk fi sëñ Modou aw Balla xaw ma sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Modou aw Balla léegi mu ne day xam naa ku mel ni eh, Abdourahman nga xam ne ñeme na métit ñeme na wéetaay te maandu na ku mel noonu di la xam ne buñ ko fa yóbbu woon li ñu fa bëgg dañ ko am moo fi indi maam ca kii maam sëñ Abdourahmane moom it mu ñëw fi nag ndeysaan mel nañ ko waxee woon uuf na fi njaboot gi uuf dëkk bi booba dëkk bi réewut nii waaye képp ku mos a am euh, tout tànk sëñ Abdourahmane a koy euh, tudd moo cay def la ca wax daawul tëju it lu dul nopp lu waxtu bu naate nit ñi wër ko xeebut gone xeebut mag tey dimbalee nag moom wax dëgg yàlla woyof tooy wa waxtu juróom nak moo koy indi ci jakk ji boba jakk ji boba e, ñaari seng la yuñ deppele <laughs> wa tay nak dem nañ be seigne Modou Mbacke moko ko def juma di premier khalifa wa manam bim ko defé juma nak nak? seigne Mbacke dabassar seigne sëñ Mbacke Abdourahman mo fi nek ni yalna fi yàgg te ànd ak wér moo fi nek nak léegi mom moko ko bëgg a beesalaat nii mhm. boba nak kër gi itam manam biko seigne Modou bu sejeng bim joggé Gabon. Omar Bongo jox ko lam koy jox muné mu ñew dal di ko def lepp ciment ak fer dal di ne day da di soso won Gabon Manit lama jëlé won Gabon Omar Bongo ko indi be Sénégal indi ko ko avion mu dik jënd lepp ciment muné ne fi la soso won Gabon li Gabon la ko amé na ko def ci kër gi muy Gabon rek waaw moy mom mo sosat kër gi waaw digënté bi ñu koy liggéeyat na ci seigne bo khalifatu seigne bo mom ci lañ koy liggéey waaw ku ñu wax Arouna kumandofen Diouf benn moo ne maamam moo seede woon sëñ Tuubaa loola nag rëcc na ko waaye nag daa bëgg a defar kër gi sëñ boo ne ko nag kon ndegam yow it da ngaa bëgg a topp sa tànki maam kër gaa ngi nii lépp a ngi ci waaw moo indi wàll gi moo ciy liggéey fi mu toll nii ba mu ci tàmbalee liggéey moom e, wax dëgg yaafusu ci waaw bëggut lenn fekk ko ci kenn fekk ko ci mébét mi moom moom moo ci tàmbali lii lépp tubaarikal la lépp lépp xeer la ak feer aw amul mool waaw ah, fondement bi xaw naa dem lu war a mat 5 te gis nga ni mu toll te noppeegut mook jàkka jee moo ko tàmbali ak meneen meben moom fi yéene yàlla na ko eggale ci jàmm te ñu fekke ko sëñ Abdou Fata moo teg xeer wi hmm. loolu daal moo fi dund ci suñ jamono ji ñu toll toll ku fi nekkal xalifa sëñ Fall nag moo fi nekk amaa nag léeg-léeg nit dikk na ma ana bagage bi ci daaru manaan ma ne leen bagage bi fi nekkoon mu nga daaru xuddoos waaye nag dégg naa ñu ne bi sëñ bi dem te ne du ma duggaat ci kër gi ndax bu ndigal jógee sañatuma duggaat ci kër gi waaye fabal leen ma bagage ba fa nekk ngeen gas ko ba mu xóot ngeen defal ma ko fa ndax mu wuutu ma ne maanaam ku fi bëggoon a dëkk laa waaw mooy barab bi. tubarkàlla jërëjëf suñu baay tubarkàlla day mel ni eh, lu wér a wér ci barab bi rek loo xam ne ñu bari réere woon nañ ko. Euh, xam na sax fii benn barab la rek ci néeg yi nga xam ne ci néegi ku tedd ki la bokkoon xam naa dinañ ànd ak yow gën a dugg ci biir ci fuur beeg jumaa jeeg maanaam mboolem jumtuwaay kër gi waaw kii ñu taxawal ci suñu càmmoñ tamit sëtub sëriñ Abdou Karim Touré la moom it suñu borom daa dogal li ñu fi andi andi ko fi mooy gëstu barab bi ndax ñun moom eh, yoon yi daa bëri ay ndaw yoo xam ne xam-xam ak gëstu mbirum sëriñ bi daf leen ñor lool waaw moo moo waral ñu dajee ci barab bi ñu jox ko wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ñaan suñ kàddu fekk leen ci jàmm waaw lii nag moom tawfiixi suñ boroom la ba ñu ci yàlla suñ borom ah, tombele ndaxte bërëb bi moom ku di murit rek da ko dégg ñëw na sax ci jasaawul sakoor nga xam ne keroog bi nga xam ne ne tubaab bi tuumaal na sëñ bi ne daa yor maanaam ay ngànnaay ndax Cheikh Ibrahima Fall la sëñ bi yónni woon maanaam ay lal yoo xam ne ay weñ la mu suturaal ko nag sol ko ci saako sëf ko ci ay giléem bi mu ñëwee ba dëkk buñ naan ngooka ñuy dallu foofa sippi fa sëf se benn pël buñ naan demba ngëri moo ñëw làmb saako yi ne ay fetal la daan léegi sëñ tubaab day bëgg a ji jihaar ngir yàlla ci la rocceeku nag wax ko mbaaxaan wax tubaab bi ñëpp nag di ko coow léegi nag ci la tubaab bi rocceeku nag yabal mbaaxaan keroog bi mbaaxaanu waree ñëw fii ndaxte wisiti fii maanaam euh, dafa dajale buur yi nga xam ne si ñoo nekk ci Sénégal yëpp te am doole waaye nag booru siin Kumba Ndoofeen booba moom ci la àndoon waaye nag euh, wóoluwul tubaab bi te wóoluwul mbaaxaan ndax bari nañ ay pexe booba la ne leen nag euh, maanaam day jël ñaari gaay boole leen ak tubaab bi ne leen kees guñ dugg rek na ngeen leen sirva sir na ngeen leen xool ndax àttan nañoo def loo xam ne seen pexam bopp la ngir tuumaal sëñ bi keroog bi ñu sëñ Modou Lo Dagana nee na moom la sëñ bi doon jàngaloo ah, rabbi bi ma maa yasro waaw ndaxte boo dee seen mi ngi naan ah, bu bu ceddu yi ñëwee ab sox du tàkk fas du daw bu ñëwee kum fekk toog na nga duju te yër sa kum fekk te nelawal booba loolu lépp fii la xew woon bi ñu wisitee kër gi itam fekk ñu fi ay téere ak warga loolu lañ fi fekk ñu daal di dem seeni wax di mairie kon daal fii béréb la boo xam ne rek am nañu yaakaar sax ku fi teg sa tànk sa yaram araamal na sawara ndax loolu moom ah, am nañ ci firnde mbirum Serigne Touba romb na foofu ndax fiir firnde ji mooy Cheikh Abdoul Karim Touré am na mbokkam moo xam ne bi mu eh, feer bi dafa faatu wàcc liggéey sëñ bi fekk ko ci njaarim ba eh, sëñ Abdou Karim Touré dem njaarim ba mu àggee daa tibb suuf jox ko sëñ bi ne ko daa bëgg nga ñaan ñu denc waaleel ko ko sëñ bi ba mu demee bay ñaan dane ko fuñ koy denc mu ne ko Touba mu sànniwaat suuf sa ne ko Touba noppi naa ca waaw Cheikh Abdoul Karim Touré nettali na ne am na julli goo xam ne si julli tusubaar maanaam euh, biñ demee ba toll ci sëgg daa gis jenn jëmm joo xam ne dafa jóge ci sëñ bu mag bi jëm mm. kaw asamaan am jëmm ju jóge ci euh, maam Thierno mm. wuti kaw asamaan. kon mo leen xamal na ñoom ñaar benn lañ bañ demee bay selmal jëm yi dellusiwaat waaye li mbooloo muy bëri bëri nag ñoom ñaar moom moom Cheikh Abdou Karim Touré dong la ko ci yàlla won naka ñu selmal sëñ bu mag bi daal di ana Abdou Karim mu ne ko maa ngi nii mu ne ko kaay mu ñëw mu ko waaye moom de lu waaye gis rek na noppi ana ma Samba mu ne ko maa ngi nii mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko est ce que xam nga ne sa day xor-xoral waaye nag dinaa ci sàkk pexe Cheikh Abdul Karim Touré nee na ma man pexe nag la ca sëriñ bu mag bi sàkk waaye ba ma ko waxee ba tey lu taalibe di wéyee ci biir bàmmeelam xam naa ko kon nag kenn du sëriñ Touba waaw tubarkàlla jërëjëf euh, macha allah day mel ni sëriñ moo ëpp na gaa yi mu àndal rek kenn ku ci nekk man na téye jamono nga xam ni buñ doon waxtaanee gaa yi mu rek du jar ñu yegg ci moom kon lii day day gën a wanewaat maam mbirum sëriñ bi kon xam naa sëñ Maam Mor dañu ànd sama ak fuur bi bu ñu pee ñu génn ci penc mi ci jumaa ji nga xam ne moom la ñuy saytuwaat nii di koy yeesalaat waaw sëñ Aroona Coumba Ndoffène Diouf mi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu yeesal gi yàlla na suñu borom dolli ko jàmm dolli koy xéwal baax ndax wax dëgg yàlla donte ne ci état bu Sénégal lay liggéey waaye bàyyi na xel la maamam defoon muy seede gi mu seede woon Sëñ waat te jamono jooju seede jafe woon lool waaye ñoom sët ñu topp ci di góorgóorluwaat di eh, jaar ci tànk yi nga xam ne moom la seen maam jaaroon kon dañu xam ne liggéey sëriñ bi rek a fi nekk kon suñ maam moon ñu wéy ci liggéey bi. Mm-hmm. maanaam li nga xam ne ni moom lañ fi wax ñun itam fii ci barab bi nga xam ne sëñ Fallou dafa ne woon mm-hmm. waa ji kanu yaa ngi fii fi la ñuy fale fi la ñuy follee ba bu jamono mo mosee mel ni suñ jamono ji fi la ko daan defee fi la ko sëñ Modou Moustapha Falilou di defee ba fii ci boppam euh, keroog ba nga xamee nee na maa ngi dem Daaru Manaan fali Abdou Diouf keroog defa euh, sama waajur wi dafa ne ca suba Abdou ma ne Mbàkke mu ne ma maa ngi sàcc dem dakaar te ñëw keroog ca yoor yoor ma tëdd ca néeg bee bëkk néeg ba fekk ma fa ku ñuy wax Fallou Diagne dal dina ma ana eh, ki fi dessel eh, ki xam nga ne ke defane damay sàcc di dem seigne Modou yone fi ne neel ka fa dess na ma nek ma dal dina sama sama ronkoñ rot ndax ka sa sàcc di dem ki ki ko ken xaayira be nopi di xam ki dem koku dara la keroog ci eh, boru bi ñuy liqaam ge fi le seigne Modou mustapha ñew and ak bëkk ne ki chauffeuram ma ak mom ñoo and mu ñew ñaan fi ay ñaan muy bi ñu taxaw tay man lima fi ñaan mooy ki fiy defar ci boppam muy Arona waa kër sëñ Fallou mosuñu fe sant kenn dara mbaa ñu laaj fi dara man mi fi nekk it keroog lu ma fi amee lu nekk dema na sëñ bi lu ma fa jëlee mu ne ma loo fa jëlee yaako ko moom moo tax fii courant maa fi dugal waaw laltu yi fi nekk maa ko fi doon def tey jii soxla naa fi ay satala soxla naa fi ay bassan soxla naa fi ay xasaay te laj ko lañ daanaka moo ma fi gënal xaalis képp ku bëgg sa aajo faju ndax sëñ Fall da daan wax ne kuy rëbbi mën ngaa yor sak fetel waaye nag defe naa bal baax na ci kon fii ku fi dikk kenn ku ci nekk boo fi ñëw indi dara loo fi indi lu nekk na la leer na yaa fi say bal moo fi say bal waaw ñun ñi fi nekk nag xam nañ barab yi waaw kon ku fi dikk indi fi njariñ danañ xam fa njariñ lay nekk ñu ñaanal la ca njariñ la ñu bokk ko loo rek laa ci am lu may wax tey jéggalu ñëpp tey ñaan ci réew mi ma eh, réew mi am jàmm yal na réew mi am jàmm ndax mbir mi kat ba di sosu wallahi la silaawo dañ ma won ne ma maanaam jëlub suuf bu nekk ca kaw waaw moo ub Touba waaw bi mbir mi laata am muy tawat ji bi nga xamee ni def na ko am lu mel ni oto yu bari yuy dugg ci dëkk bi bi ñëwee ci jàllu suuf bi bu dik bu dik gisatuma la bu dik gisatuma waaw mu mel ni kon leen duggutoon dëkk bi hmm? ñu bàyyiwaat ba jëmmi jamono ma ne lii de rafet naa ci ba ma déggee tawat ji ma ne rafet naa ci njoot ñu toogaat ba jëmmi jamono ma gis jumaa ji def nii ma ne leen lan la lan la ñu ne loolu mooy paratonné dañoo bañ dara dugg fi waaw ah, ca guddi ga la gone yi def liñ def sëñ taxa wax ci guddi gi ba gone yi bàyyi seen loole kon fii jàmm rek a fi am dem soob na yàlla yal na yàlla def Tuubaa ci jàmm def ko ci réew yi def ko ci fu murit nekk rek barke Seydina Muhammadu Rasulullah mom mi Cheikh Mamadou Fadal la andalon di liggéey ba ci seigne mm, seigne Modou bou Dieng ba ndigal lol mako ko wat ci barab bi kon xamna dañuy wey rek ci liggéey bi ñaan suñ borom dool la fay yagal taxaway bi rafet na dolli la wër bu baax baax ba nga yag taxaw liggéey barke seigne touba seigne mamadou ñu wey ci yenen barab yi incha allah. la Bamba gonté darul manan war ci kérok go togg ci di gawan ba mu ñewé ba jublu mbacké ak bàpp gaaye na yo ñene de raam ne wëpp mu ne ku mokkal dal ci ndi ndi na ma ko jàngal ba ca mbàkke doodi sëriñ ma ko jambay ma dëkk longoor ne maa ko mokkal bamba naa ko wëw góor muy wax ba jot wa daami ren ca wëy wa naa ku la daaye mu naa ko doy na xablal wusuuli man laa gaam naa non naa su may noon jëkk tey lii wér na ab soxdu tàkkati ci mbàkkeeg daaru te ku fi ñëw sa xol su delloo waaru dal di ne cëpp wàcc jaar ba jàkka ja dal di ne cëpp wàcc jaar ca jàkka ja julli fa ñaaru rakaam fa maxraja woolu borom saam ak borom gaawaani maam Thierno Seexu Afiya ñëppay waane ñu ñëw mu wax leen lool sa ñeefu wax ngir ku ko di nga ku mbaate nga torox. ok bisimilah ba tey kon mu mel ni ñu ngi ci eh, barabu jullikaay bi mu toll ci jamono yesalaat ndax ku ne xam ne sëriñ bi moom fépp fu mu dem eh, jàkkaa fay taxaw maam balaa lenn taxaw moom dañuy defar barabu jullikaay ba noppi mu mel ne kërug Daaru Manaan gi am na jumaa ci pénc mi waaye am na jàkka ju nekk ci biir ñu toll ci war yesal ñu bëgg rek nga indi ñu ay leeral ci jàkka ji. maanaam fii itam maanaam jàkka ji euh, sëñ Fallou ci boppam bi mu fi ñëwee mën nañ ne maanaam moom mi fi nekkoon ak ku baax ki maanaam dafa xam barab yi barab bii nag moom moom moom moom fi ñëwee. defar na ko am na bant bu gudd bu fi nekkoon ci digg bi dañ koo suulaale dara jógu ci defal ko xàmmikaay moom ba mu fi ñëwee benn yoor-yoor ne mu jékki-jékki ba jëmi jamono maanaam jamono xocc nee mu toog a toog a toog ba nee na keroog nee na day am nay gani naar yu jóge Mauritanie am luñ ko indil ci mbirum sëñ wa mu fa nekkoon nee na keroog day nee na keroog luñ leen eh, berndel sax amu fa kon jamono yàgg naa metti li sëñ Fallu daan wax waaw waaye ku nekk dana war ndéexe waaye man sax mos na ma war ndéexe <laughs> kon loolu mos naa am fii bi mu ñëwee nee na toog fi toog fi toog fi di ñaan di ñaan di ñaan ba mu yàgg Cheikh moom Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu yàlla na yàlla yokk leeram nga ne fekk ko fi ne ko Mbàkke man day dama laa laaj ñu ne yaa ngi ma naan mu ne waaw itay jamono rek waaw ndax eh, am na gani naar yu fa ñëw indi sa mbirum maam te ma war leen a ganale te xam nga luñ bëgg ñoom naar moom eh, warga ak maanaam ndawal ak lu mu def ci poosam buy dem rek loolu moo baax ci ñoom te nag nekku fa. moo ma tax a ñëw fii mu biir ne kon ak jaaxle ma fi tax a ñëw dal di tey ne na leer ne sama bët xonq na cooy waaw mu dal di yëgle ne nag maanaam damaa bëgg nga indil ma nangam lim booba moom moom sëñ bi xam na ko yàlla xam na sëñ bi dem indi ko maanaam sas wa sëñ Fallu sasoon dal di yëkkatiwaat dara ne ko lii moom maa ko ci barkeelu sëñ bi yëgal ko ne ko ce ce ba mu jaag mu ne ko weexal nga mbët sos day ku ko ku ko ku ku ko weexal sa bët dootut xonq loolu sëñ Modou Bousso Dieng fii la ko amee barab bi muy eh, garab gii di mbul moo gële ci biti ak daqaar gi nee nañ sëñ ko fi waccoon waaw kon dégg naa lu bari sax da ko fee gaslu ne nañ ko defal ci suufu daqaar ga mu wutu ko fi ngir mu xam ne fii la bëggoon a dëkk waaw mooy daqaar gi mbul yi moom moom lu ñu fiy bàyyi la ndeem sob na yàlla ndax ku ñuy wax eh, Baye Tanor kii Baye eh, Baxaw fal moo ànd ak sëñ tanoor Dieng ñu ñëw siyaare si fi biñ ma fekkee fii mu lëng ma ne ma fii de dama fee Senghor dama fee yónni garab ma egg si ne indi ko ne fekk sëñ Fallou mu tëdd ci piliyaan bi fi hmm. nee na mu ne ko lii de Senghor ma ko yónni woon nee na mu ne ñokket ne ba mu ne ñokket ñaari ñaari mbul yi la fi jëmbatal boppam hmm. nee kon ba tey moo tax mu des fi motax tax rek mom mo fi nek ci waaw dakar gi mom mo fi nek ci mbirum seigne touba fi la seigne Fallu defee woon loole fi la ko seigne Modou bu Dieng manam it defee woon loole bi yalla dogalé manam mom mom kër gi bi jamama du liggéeyee kasso ci bakkel ba diko inauguré ji dal dina ku mbam mbam lo ti malaw belaw belu waaw seigne fallu de ko na wa bismillah kon buuse dem beuseuri bi seigne Fallu ñëwé fi sol lu ñuul kok kuko jup mu ne buma ma laal mo ken laal ba fi dikkee ci néeg yi dal di dugg dégg fi xalwatu waaw ba fi amee ay fan yu néew léegi dal di jékki-jékki dal di woo ci fere yi kenn ko seetal ma euh, jant bi mu ne ko mbàkke mel na ne sona de ma jant ma riix jama riix mooy fii ah. waaw kon nag fii bari na lu fi xewe sëñ Modou Moustapha Fallou nu nag euh, sama baay moo àndoon ak sëñ Fall ñu ànd ak sëñ mm-hmm. man it fekkoon maanaam may jàngi école mm-hmm. ma dal di ne maanaam dama bëgg a dem daara léegi nag dal di dem ci sëñ Mbacke astu Magalug Dar Salaam boobu bu gaawaan bi liyee ko sut waaw bi ma demee léegi ba joxe sama bopp sama baay dégg ko léegi nag te sëñ Fallou nag mu ne ma damay bàyyi ci sañ Mbacke astu sëñ Mbacke ko déedéet borom ginaar ak ki nenam moom moom ginaaram léegi damaa bëgg nga dem ci sëñ Fallou ba tàggu ko bi mu demee ci sëñ Fallou dafa bindub leetar jox ko sama baay ne ko joxal ma ko sëñ Mbacke ci takkusaan sëñ Mbacke jàng ko ba noppi nii dal di ree dal di dal di doli watu sukkam bu baax ci lal bi dal di na ci sëñ Modou Fallilou nee dama la denk de waaw dal di ma téye ñaari at waaw ci denkan la ma tawat tawat ju metti ñu jele ma fa ndax denkan la sëñ fallu defon sëñ Modou Bousso Dieng dal di ma jël si yóbbu ma ca daara ja bi ma moma moo ma ba yeewu ma fekk sama bay yeewi kon mu ne ma ndax nga bëgg a ak mom mané ne déedéet mu la defal lol sa ndey du ko man sa bay nga tok du ko man ci yow mooy ngërëm lee suñ leetaru ngërëm be am ngeen ngërëmal yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ak sëñ Fallu mm. te bu leen ragal dara am na ñu fi jógee ñu wàcc leen ne subhanallah la ca teg mm. am ñu fi jógee ñu wàcc leen am ñu fi jógee ñu soppi seen liggéey mm. yéen nag mucc ngeen cee loole làq ngeen ngërëmal yàlla ak yonent bi ak sëñ Fallu loolu def nañ ko kon loolu lu jafe la waaw kon nag moom sëñ du lu waaye wax ci moom rek man li ma xam ci moom ëpp moom waaw léegi bi ñuy nekk Touba Bogo maanaam euh, ñu ngi ñaar fukki daara ak ñeent daare ju nekk di béy un kilomètre di am ñetti nit ñaari pe benn peeru nag benn fas fukki barigo yi kemb juróom lañ daan béy buñ noppee daanaka daañu am ñetti téeméeri barigo daare ju nekk da ngay xool loole waaye bu sëñ bi noppee maanaam moom moom soxlawu ko daanaka de dañuy mujj maanaam wutal ñu njël sax la ñuy béy duñ ci lekk dara dara sëñ moodu foofu la fa rewoon hmm? baatinam nag mënee su ko wax bari na bari na yàlla na ko yàlla fay rek barke sëñ Fall. tubarkalla allah day mel ni yëf yi naanuy dolli mar la ndax ci barab bu ñu toll rek day day gën a yéeme ñu ngi ci garabu mbul gi xam naa daqaar gi daqaar gi it xam naa bari na liggéeyu sëriñ bi boo xam ne da ko daan ci suufu daqaar gi euh, jàkka ji ñu toll ci yeesalaat kon dañuy bàyyi suñu jëriñ ji mooy mu indi ci ay ay ay ay kàddoom rek ñu ñu gën a wéyaat ci liggéey bi ndax fekk muccut hmm. waaw lépp daal maanaam mbirum sëriñ Touba. moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la te lem naan sama tey june gàccaal na sama démb mooy lii rek kon daal béréb bii yàpp ne ku la fi waay ñaan rek suñ boroom dina ko saafara waaw ndaxte Serigne Touba maanaam euh, ak njabootam ak seex si ko daroon rek benn bu ne boo dee xool rek maanaam day day sëkk sëkk sëkk rek maanaam ab jotaay day day sëkk sëkk ab jotaay. ndaxte ba tey ci suñu maam jooju àndoon ak moom maanaam bokk na ci kàddu gi nga xam ne si moom la njëkk a mujj a wax euh, wàccib liggéey looloo mujj ci gémmiñam laa ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam nekkate li ne ci ay mbindeef ci kaw suuf di dox dayuñu ma am ramm yowmal xiyaam waaw te sëriñ Tuubaa ne ko woon demal tëdd te jaaxaan mu jóge fa moom di tëdde njaaxaanaay ba benn bis la ne bëreet toog rongoo ñi jaar nii ñu ne ko lu mu doon mu ne sallallahu alayhi mi ngi noonu di génn ak i saxaabaam te kooku buñ ne laa doon ci sëñ Tuubaa da naan ab rek la ab taalibeem kon daal alhamdulilah rek. waaw. <laughs> tubarkal jërëjëf day mel ni li ma koy waxee rek maam ñooñ sëñ bi ñooñ sëñ bi. waaw kenn ku ci nekk rek mën naa téye jamono mën naa régler ëllëg fa ñu jëm waaye ci mbaaxuk sëriñ bi rek. waaw ci mbaaxuk sëriñ bi rek waaw mu mel ni daara jaa ngi ci ginnaaw waaw cey waaw. tey mm. waaw kon xam naa Dakar gi day mel ni tubarkal cey moom barab bi daal la daal tubarkalla <laughs>